sëñ Mouhamadou Bachirou Baro euh, ñu ngi sa stand fii ci salon déco bi nga xamante ni maison euh, déco maison bi euh, tey lan la ñu mën a jàpp ndax biñ ñëwee fii gis nañ fii vraiment ay jumtuwaay yoo xam ne koo xam xam ne suñuy baax la suñu cosaan la te ànd na ak maana te jekk na sell na liggéey bi nan la tëddee ak naka nga koo jàngatee. waaw sant yàlla bu baax sant yàlla bu baax sant baax liggéey bi moom macha allah macha allah rafet na trop aussi tamit am na qualité te tamit set na. te tamit am na finition te parfois ma dégg ñu ne ouvrier Sénégal yi duñ liggéey finition si dootul léegi de dañu liggéey finition bu baax a baax a baax a baax a baax surtout surtout ci wàllu finition dañ koy sonn bu baax waaw. liggéey bi naka ngeen koy defee ci yan anam ndax jël na temps ndax metti na wala déet. waa jël na temps jëlul temps parce que bu ki koy def bu amee bu amee passion bi rek du jël temps ci moom du métti yenn métti yi lii ay bërigo la ñu jël bërigo huile yu jeex la ñu jël récupéré ko. buñ ko récupéré ñu koy jënd ñëw indi ko bu ñu ko tracé ba pare dagg ko raxas ko ba mu set commencé travaux yi buñ ci nekkee ba pare peinture ko ut éponge uuse ko ba mu normal. mu nekk produit locaux yu am solo euh, naka nga gisee salon bi ndax visiteurs yi ñu ngi vraiment adhéré ñu ngi gis ne lii euh, yitteel na leen. waaw visiteurs yi yitteel nañ leen yitteel na leen yitteel leen trop parce que dans trois jours soo mënee joxe ay trois cent et quelques cartes kon yitteel na leen yitteel na leen. waaw am na solo trop. ñu koy jaajëfal bu baax Mouhamadou Bassir kon ci liggéey bu solo bi nga xamante ni ñu ngi koy amal fii euh, ci rek euh, salon euh, déco maison bi nga xamante ni ñu ngi koy amal file ci rek foire internationale bu Ndakaaru kon ñu bàyyi ko gan yi ak visiteurs yi muy nekk produit yu am solo gis ngeen ko ni numéro téléphone yi mën ngeen ko ceewoo ci Touba Taïf contact 77 365 65 67 wala nga woote 76 662 79 74 wala nga woote 70